kii di rafetlu woon bi ak uh, télévision Futur Média juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak si génn ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës uh, juróomi nit ñu ni faatu na ca dégâts matériels yu am solo ak it ñu am gaañu gaañu lakk gu am ku ñu am jafe-jafe ngir fay ko ca Dakar bu Medina Gunas la xewe sànq ci bëccëg uh, dinañu ci jokkoo suñu ndaw xool fan la yëf yi toll woote xalif général ku li murit jëmale ci président de la république ci mu gën a kon dialogue ca biir PDS jàpp nañu ni président jëful jëfi ku bëgg ba ma Ndiaye ni moo tax ngoonu ko législative de danañu ko ko imposé ci assemblée nationale Zahra Iyane Thiam am beneen position leeral yi ca kanam tuuti ceebuk wale bi ñoom nee nañ ña koy jaay am nañu jafe-jafe ngir kon écoulé ko fi ci euh, fiara bi nee nañ ay toni toni ceeb jamono yi ma nga ca seen loxo ba tax commerçant yi am nañu ci kon ak euh, dana ñu waxaat ci wàllu urgence bu dee nguur gi def na ci ay jéego gis nañu ni ba tey it am na kon loo xamante ni moom moo des ca ponk boobu gën a équipé service yi yokk capacité d'accueil bi waaye tey médecin urgentiste yu doy bokk na ci tolof tolof yi gëstu Fatou Kiné Dème la nañu ci dikk ci kanam ci ponk yaa nga kon mbokk yi ni tuut ñu yaatal ko rafetlu attente bi ak télévision Futurs Médias ak lakk ca kon ndaka bu Medina Gounass juróomi nit la ñu ni ñàkk nañu ca seen bakkan nam ñu ci jëlee gaañu gaañu dégâts matériel it yu am solo lakk ga ci bëccëg kon sànq sax ca ngoon la ñuy wax amoon nañu jafe-jafe ngir fay ko ndem sax sapeur pompier yi ña nga fa woon ña demoon it ca dàkk ba di leen jàppale ca boobee liggéey amoon nañu kon tolof tolof eh, ci wàllu woowee kon pour maîtriser eh, tàkk-tàkk yi Abdoulaye Diallo euh, bu dee mi ngi ci ligne bi muy di ci leeral Abdoulaye dinañu ci dellusiwaat kon am nañu jafe-jafe ngir jot ko jamono yi président Macky Sall démb ma nga woon kon euh, ca Tiwaawoon foofee gise fa ak xalifa général ku li murit mu sàkku ci moom wàllug euh, dialogue bi mu gën ko kon doxal ci wàllu woowu nag ñi nga xamante ni moom la seqal langue politique bi joxe nañu ci seen xalaat fu demee ni waa PDS jàpp nañu ni président jëfewu ko ma ngay jàpp ñi processus électoral bi it bari na loo xamante Euh, waxtaanuñu ci ak ñoom ma Ndiaye ni moo tax ni danañu lëkkoo euh, ñoom waa grand parti ak ñeneen ba ngoonuk législative yi ñu imposé ko muy dialogué kon ci assemblée nationale Zahra Iyane ma bokk ca biir APR ma it dikk ci beneen position leeral yi Mame Birame Diouf fa du Diop njiitu réew Macky Sall xamle ni li ko ñor mooy saa su nekk nag muy waxtaan ak ñëpp rawatina kuje gi si lu soxal réew mi xalaat googee ci biir kuje gi nag moom ni ñu ko gisee am sax ñu jàpp ni lii daa tey xel. ñu teg ay actes yoo xam ne dafa jëm ci nasaxal euh, processus électoral bi muy lu jëm ci consensus bi nga xam ne amoon nañ ko booba ak léegi ëpp na ñaar fukki at ak juróom ñu dakkal ko moom ak ministre de l'intérieur ñuy def lu ko neex alors que lu jëm ci wàllu woowu dañ ko war a waxtaanee ak ñi ko seq ñëpp bokk na ci opposition bi Euh, tey bi di gën a dellu ginnaaw. moo di ba ñuy jëm ci référendum yi juru fukki point ak juróom-benn yi nga xam ne yii ci yenn yi dañuy concerner directement l'opposition muy statut opposition kiy jiite opposition ak parti yi naka lañu leen di wàññee naka lañ koy organiser waat yooyu question yaakaar naa ne chef de l'État waru ko woon a mën a jël. ak boppam dugal ko ci biir euh, point yi nga xam ne moom la doon soumettre euh, sanction populaire te waxtaanu ci ak opposition mais defu ko. heure gi ñu samp jëm nag ci waxtaanee lépp lu ñor réew mi njiitu réew mi Macky Sall taxawal ko Zahra Iyane Thiam xamle ni kuréel googee luy dox la waaye bu fekkee ni blocage daf cee am daf fekk ni ku gi day wane rek nii boppam la fi nekkal. di leen métti du président Macky li nga xam ne mi ngi koy defal réew mi li loolu leen metti nag du président Macky Sall du ñuy ànd ak ñoom ñoo leen ci mën a indil solution wala saafara askanu Sénégal lañu ñu war a dem waxal ci loolu ndax askanu Sénégal moo tànn président. kilifay diine yi nag ñu jóg di woote ngir waxtaan am rawatina ci langue politique bi ngir pencoo lépp lu soxal askan wi ni ko sëriñ Abdoul Aziz Al Amine sax di defee. waaye mu am ñenn ñoo xam ni respecté wuñ loolee ma Ndiaye ne woon fi ministre des affaires religieuses ci jamonoy maître Abdoulaye Wade di ñaawlu loolu. maa ngi dalal xelu nit ñi du way politique yëpp waaye dëggu moo war politicien ndax politicien mooy kiy waxal askan wi di jàkkaarloo ak nit ñi ki ki soxla confiance su nit ñi te confiance mënoo ko am te dëgguwul. ñoom liñ ñuy wax duñ ko déggee benn nopp. dañ kay may xel bu baax a baax muy ñun muy njiitu réew mi non seulement dañuy may xel li ñuy wax mais dañ koy jëfee aussi. kàddu yooyu euh, sunu sëriñ yi di def nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla ñi ngi def seen warugar euh, dafa gën a jëm ci pouvoir parce que initiative yooyu pouvoir moo ko mën a jël waaye opposition du ñëw di woo Macky Sall naan ka kaay ñu waxtaan. ubbite njiitu réew Macky Sall ci waxtaan guy sax ku ci nekk ci ñoom joxe ci xalaatam di wane la des ci dialogue politique googee antu ca biir Benno Bokk Yaakaar nag fële ci département bu Kébémer foofee waa PR xajotuñu ak coordonnateur départemental ba ne nañ na ko fa président Macky Sall jëlee lu ko mooy législative yi ñuy dëgmal la dana ñu ko ñàkk ñu bëgg nag mu jël ci ay mesures ca na mu gën a gaawee ndax jàpp nañ ni na mu yore yëf yi baaxul ka cay wax Pam Ndiaye la yoo maire bu commune bu Mbacké Kadior ci micro Thierno Fall bu leen nangu mukk di wate sanction nan jàkkaarloog président de la république wax ko li am li am mooy kii nekk sunu coordinateur fii mu nekk nii merloo nit ñi la gën a def ci di leen di leen liggéeyloo ci parti bi yeneen yi ci topp muy o conseil bi diviser bi mu diviser parti bi jaar na jël sanction perte bin perte conseil départemental jar na jël sanction booy jiital itam xaa da nga jiite ku mën a gañe commune am koo xam ne commune am minoritaire la fa munu ko gañe nga bëgg ko jël placé nu ko lenn li njàpp njaam la te duñ ko nangu duñ ko masa nangu président nañu tànnal dañoo discipliné comme nu tànnal daan ko respecté moom la ñuy liggéeyal mais bëgguñu dem ca tool yi ñëw indaalewaat gàcca te lii muy def nii bu ko continuer avec le Khalifa Dia dañuy am kersa parce que nit ñi duñ ko nangu nga ko coolo kon ca biir Benno Bokk Yaakaar kon euh, fële ca bor yi Kébémer président de la République am gan njiital Portugal euh, mi ngi fi kon ngir gann si ko ma nga nag tey ci université Cheikh Anta Diop foofee takkal nañu ko fa rek docteur honoris euh, causa moom Marcelo de Souza daal di dellusiwaat ci diggante bi nga xamante ni du tey diggante Sénégal ak Portugal lay satu pay Younous Diatta Marcelo Rebelo de Sousa njiitu réewu Portugal ñu tabb ko docteur honoris causa mu nekk nag sargal bu mag ci gis-gisam ci dëkkam waaye teewul nag mu fàttali vision commune bu ñaari dëkk yi am muy Sénégal ak Portugal. jëflante gi diggante Portugal ak Sénégal dafa mel ni rek ay doomu aadama yu bari yoo xamante ni nii danoo daje boo ko gis-gis moo xam ci wàllu caada mu nekkit loo xamante ni ku ci ne ci ñun foo dem ci àdduna bi mën nga faa nekk mu nekk loo xamante ne daal ni ñu ko waxee rek ay gëstu la ci wàllu caada caada goo xamante ne nag doomu aadama képp lay soxal li nga xamante ne nag moom mooy doctorat honoris causa ci man dafa doon loo xamante nii su ma ci sukkandikoo li nekk sama gannaaw sama ëllëg laay xool. de passé c'est une vocation d'avenir. boo xamante ne monde universitaire bi ak académiciens yi am nañu rôle bu am solo bu ñu ci war a jouer ci kàddu président portugais bi. nous ñu ngi fii eh, ci barab boo xamante ni nag barab bu am solo la ndax daara ju kawe la eh, ñu ciy gëstu mu boole ay boroom xam-xam eh, ci wàllu caada ñu wute lool waaye nag lu mu ci mën a doon rek dañuy fexe ba suñu gis-gis yi doon benn mu nekk nag ay boroom xam-xam yoo xamante ni ay gëstukat lañu ci wàllu lettre ci wàllu science mu nekkit tradition boo xamante ne daal dana ko sàmm bu baax a baax académie bi nag yoon wi nga xamante ni nii ci la tege duñu ko teggi benn ñuy sukkandiku ci lii fi Léopold Sédar Senghor euh, bàyyi te nag euh, ba daal lépp euh, mën a jëmale askan wi kanam. nous pouvions discours humaniste bi mu wax tax ñëpp ovationné ko Marcelo Rebelo de Souza bi mu paree signé livre d'or bu université Cheikh Anta président UEMOA moom daal ci Sénégal tàbbi ci loxoy Niger ba 2021 ci gis-gisu Alpha Wali euh, Diallo consultant la euh, jàpp na ni maître Abdoulaye Wade kon euh, nu mu doxalee woon la woon ak réewum Niger benn compromis boo xamante ni kon déggoon nañ ca moom moo jur li tey Aminata Mbare Sow Younous Diatta Sénégal jiiteetul président su commission bu UEMOA li ko dalee 2017 doomu Niger mooy toog ci bopp présidence kuréel gi nga xam ni daa nànk koom-koomu juróomi ñetti réew yi nekk fii ci Afrique de l'Ouest présidence commission bi suñu suñu benn naataango ak Hadjibou Soumaré moo fa nekkoon Ablaye Wade moo ko fa tegoon euh, Ablaye Wade ba mu ko fay teg coow amoon na mais ba mu diggaloon waa Niger ni ab Hadjibou Soumaré bu fa jógee dana leen may pour ñoom ñu nekk président. moonte ci njëlbeen bi ñuy tabax texte yi war a mois dañoo neewoon ni doomu Sénégal mooy faral di jiite présidence commission bu mois waaye ay at ci ginnaaw njiitu réew moo woon di maître Abdoulaye Wade dafa am lu mu digoon waa Niger. bo nekkul ci texte yi parce que texte yi li mu wax mooy présidence commission bi Sénégal. Euh, moo koy nekk. Mhm. normalement mandat boobu Sénégal da ko naroon continuer. donc président Macky Sall wut koo xam ne mooy wuutu Agibou. Mhm. Ablaye Diop bi nga xam ne nii du Ablaye Diop bi nekkoon ministre des finance mais beneen Ablaye Diop la ñoo bokkutu mais kooku mi ngi nekkoon budget. Mhm. loolu bi mu amee waa Nigérie kat ni ah ñoom duñ ko ko seetaan parce que Ablaye Wade dafa am lu mu leen. digge la woon te digge sa gox ba. ñu jàpp ni tey jilee loolee moo jur Sénégal daal ñàkk présidence UEMOA teewul am na yeneen i poste yu am solo yu ñu dénk ay doomu sénégalais. pour jox ndàmpaay Sénégal euh, chef d'état yi décidé que ni danañu jox président conseil de l'épargne des marchés financiers Sénégal rax si dolli danañ ko ubbil postu vice-gouverneur de la BCEAO. ci fàttali nag ak Hadjibou Soumaré ci atum 2010 lañ ko taboon tey jii ki ko uutu di benn doomu Niger bu tudd Abdoulaye Boureyma moom moo nar a jiite présidence union économique monétaire ouest africaine ba 2021 Sénégal soo ko mën a jëlaat poste boobule. foire internationale bu mbay mi ak li jógee ci euh, jur gi ña nga xamante ni ñoom ñoo fa yor ko ceeb bi te féetee ci vale bi ña ngay bëgg am njàqare nañ bari na jamono yi lu des ci seen i loxo gis suñu client yi kaleen seeti Fatou Bintou Konté ànd ci ak Thierno Laurent Mendy njaayum ceeb bi ren taxu koo demee noonu fee ci di foire internationale de l' agriculture et des ressources animales njaaykatu ceeb yi nag jamono ji ña ngay kaas lambale gi nga xam ne seen ceeb gi jot na ko lamb gis ngeen ambiance bi aussi tamit nu mel fii comme si dara amu fi quoi noonu lañ ko mën comprendre aussi ceeb bi gis ngeen exposition yi gars yi ñu gisuñu dara da ngay toog la journée nii comme ça mooy loolu doo sax mën a jaay cinq sacs wala quatre sacs comme ça. dañ defoon pour nit ñi xam ceeb bi maanaam mën nañu xam ne mën nañu wax ni bonk la plupart ñu bëri si Dakar xam nañ ko ñu bëri am nañu fu ñu koy kon ça veut dire loo tax nga jëm si ñooñu la koy jaay chaque fin du mois moo lay gënal. ñun na xaw nañoo jaaxal ndaxte bu nu sànnee fu yaaraat ceeb bi day dem daan ay vingt tonnes trente tonnes waaye ren daal gis nañ ni. affaire depuis commencé ba léegi doxul. bu ñu xoolee sax moom mii di Ndate dafa fas yéene ñibbi ak ay tonu ceebam moo ne di année bi ñu wees moom jotoon na lépp lu mu indi woon ci ceeb mu jaayoon ko. ren man presque indi woon naa ba may ñëw indi woon naa sept tonnes waaw mais sept tonnes ñu ngi nii ba tey jeexul daaw presque ba may ñëw indi naa presque lu ma ay dix tonnes jaay naa ko ba mu jeex ba dellu jëlewaat encore. mu di nag mbir moo xam ne jaaxal na loolu jaaykatu ceeb yi nekk fii ci Fiara ku nekk nag di ci jéem a wax lan moo ciy xalaatam. ren gisuma visibilité am par rapport à la publicité. foire bi maanaam parce que man daan dem presque une semaine avant ñu bëri dañ ma daan woo ni ma foire bi jot na foire bi jot na man leen waaw ñëw leen loo ngeen bëgg daa ngeen fekk. souvent da ngay nit mu xamal ne man ma woon sax fiara bi commencé na. waaw loolu moom man gis naa ko donc moo tax ma yaakaar xam naa ni problème de communication bi dafa xaw a manqué daal. booy xool par rapport yeneen fiara fiara bi amul nit ñun lu ñu barul sa ay nit yi nga xam ñu ngi ñëw di jënd di kii sax say client daal ñooy ñëw di jënd pa nànk nànk nànk mais daal vraiment doxul daal nu mu war doxee moom. visibilité daal moom dafa dafa dafa des ak koy koy bi daal communication bi daal dafa mën a jàll si ci kii loolu daal dafa des. ñu teg leen ci lu toll ci 400 mètres carrés ñoom toll nañ ci ñaar fukki juróom-ñeenti exposant fukk ak juróom ay jigéen lañu ak juróom yoo xam ne ñu ngi jóge fi nga xam ne moom moo di Casamance ñoom ñëpp nag bëgg nañoo jeexal seeni ceeb balaa foire bay jeex ci dimanche gii Fatou Kiné Deme hôpital euh, kon général bu Grand Yoff gi euh, ñoom daal nañu yam ay euh, don yu ñu teg ci seen loxo ngir daal ñu war a gën a mën a taxaw malade yi ci li nga xamante ni moom moo di kon wàllug urgence mu di lu ñu rafetlu daay it doon lu ñu doon séntu ki xamante ni moom mooy directrice ba Khadijatou Sarr kebe ak ambassadeur bu France ñoom ñoo ci nday leeral ci lu waral boobee don ak la ñu ca bëgg jëmale ci malade ci micro Fatou Kiné Deme dañu am ñeenti salle yoo xam ne mu ngi ci SAU bi service d'accueil des urgences donc boobu dinañu permettre ñu équiper ko ba nga xam ni li ñu ministère sas ci prise en charge des urgences président de la république sas ko ministère de la santé ñun suñu pàcc dinañ ko mën a bay ba nga xam ni bépp prise euh, urgence bu fi ñëw dinañ ko mën a jël ci gën gaa euh, rafetu anim loolu la te don bi gis ngeen ko am na importance ndaxte boo xayma valeur bi ëpp na cent cinquante millions. au-delà de l'aide et du don. bu weesoo jumtukaay yi ñu maye fii li ci gën a am solo nag mooy toppatoo gi ndax ONG bi dafa mës di topp ndax jumtukaay yi nga xamante ni nii dañ koy faral di joxe ñu ngi koy toppatoo bu baax a baax bu demee ba am at ñaari at jàpp ñetti at ndax tamit dañoo war a xam ne projet yi du wéy ndax lu ci ëpp bu amee ñetti at rek. rek dañu koy dakkal. s'arrête au bout d'un an deux ans trois ans. ANCAR Horizon Sahel ñoom def don bu ni mel terewul nag ci eh, bu ñu xoolee waa docteur ah. service d'urgence yi ba tey jii ay jafe-jafe rek la ñuy dund ndem nguur gi def na effort bari na foo xamante ni wax na ca taxawaat bokk ci gën a équipé service yi capacité d'accueil bi ñu xoolaat ko waaye ay médecin urgentiste saa soo leen yittewoo fekk leen sur place gisu Fatou Kiné Deme. fexe ba aji tawat gi mucc. teg ko ci yoon wu baax ngir ñu taxawu ko ci nu ma gën a gaawee wàllu urgence doon jafe-jafe ci àdduna wërngal këpp lu ci ëpp nag ay jàngoro la yoo xamante ni nii seen tolluwaay day mujj jéggi dayoo. suñu xoolee suñu structure de santé en général maladie suñu ñëw consulte urgence moo gën a bari. parce que dañuy toog parfois ba feebar bi graaw wala dara ñu soog a ñëw hôpital wala feebar bi daal di manifesté woo noonu soo xalee maladie yu bees yi mooy urgence hypertensive yeeg diabète yeeg AVC crise cardiaque yi donc maladie yi dafa changé et donc c'est pourquoi euh, euh, urgence yi gën a bari. bu weesoo loolu accident yi ñëw dolliku ci. wala accident yi tamit day gën a bari mais waruñu bett parce que dëkk boo xam te ne tali yi day yokk nit ñi dañu yokk. oto yi dañuy yokk infrastructure yi dañuy yokk nit ñi yàkkamti soxla yi gën a bari donc accident même si pays développé accident yi day yokk du yokk du yokk war nañ def maanaam ay ay pro ay ay effort si prévention sécurité routière parce que tamit soo xoolee am na yeneen yoo xamante ni bu bokk na si indiscipline ak yooyu. fii ci Sénégal nag def nañu ay jéego naam ci taxaw ci wàllu urgence ci juróomi at yu mujj yi ak service bi nga xamante ni samp nañu ko muy SAMU teewul nag. ñu war a defaat yeneen i jéego lu ci mel ni li mukk borom xam-xam yi ci wàllu urgence. hôpitaux yëpp war nañu am service d'accueil des urgences def nañ ko léegi nag li des mooy ñu mettre leen aux norme donc euh, renforcer. ci personnel bi forme ay médecins urgentistes renforcer si équipement bi renforcer si capacité compétence su personnel yi former ay médecins urgentistes pour que vraiment euh, faj bi daal de gën a efficace. médecine d'urgence nag doon ab profession bu yees lool tax réew yëpp nag war a dox jëm ca kanam xool li nga xamante ni moom la askan wi soxla ngir nag médecine bi ñu mën ko méngale ak jamono. quinzaine nationale de la femme jàpp nañ ko ñaari fan ci weeru mais jàpp ñaar fukki fan ak benn ci euh, weer woowee loola waral nag jëwrin ji euh, Mariama Sarr daje kon amalum daje te ji ca Blaise euh, Senghor ngir waajal yëf yi foofee dellusi na ci solos tem bi ñu tànn mu di plan Sénégal émergent ak ni mu mën a taxawee ba jàppale jigéen ñi ñu moom seen bopp di mën a jëfal seen bopp ñu teewlu ko kon ca thème boobee muy dellusi ci micro Aïssatou Paye Camara Ababacar Camara moom boppam ci xalaat mën a xam gëm boppam mën a dem di def di dindi loolu mooy autonomisation de la femme fonds de promotion cinématographique ak audiovisuel koppar yooyee euh, toll kon ci juróom-ñeenti téeméeri millions ñu war ko dugal ci yi film ak lu jëmale cinéma kanam nan lañ ko fas yéene euh, doxale ak it euh, gaañee nu ñu ko gisee ña nga koy rafetlu waaye daal bëgg nañu bu ñu ca jubloo dëgg bu ñu ca génnee sax la ñuy wax cinéma ñu gis ne am na jéego yu mu def Aïssatou Paye Babacar Camara fanweer ak juróom-ñetti projet wu film FOPICA financé leen lu toll nag ci 900 millions fonds de promotion bu industrie cinématographique ak audiovisuel taxaw temm nag ngir relancer cinéma sénégalais. ci ñu njëkk lu wax carte professionnelle mooy carte d'identité di wone ne que yow professionnel nga ci ay euh, liggéeyukaay ci wàllum cinéma ak audiovisuel loolu amuloon. amuloon et carte yu ñu joxe du carte caaxaan da koy kii di ko sànni di ko kii carte yooyu dina tax bu ñuy laajtee autorisation de tournage film ba bépp film dañ lay laaj wane ñu wan ñu ñan ñoo am carte professionnel ci tournage yi ngeen di def muy étranger yi muy sénégalais yi bala ñu koy joxe parce que dañu wax professionnalisation yenn ci seen objectif yi nag numérisation salle de cinéma bokk ci mu nekk loo xamante ne yitteel na leen lool. financement yi bi ñu wootee déposé euh, jot nañu lu toll ci téeméeri projet ak euh, fanweer ak juróom-ñaar bi ñu defee processus de sélection bi. Euh, jukki nañu ci projet yooyu fanweeri projet ak juróom-ñett yi nga xam ni jox nañ leen lu tolloo ci neuf cent millions à peu près projet yooyu am na ay projet yi nga xam ne pour defar film la yeneen yi pour defaraat salle de cinéma yi la yeneen yi pour distribution de film yeneen yi pour formation parce que dañu bëgg tàggat suñu techniciens yi ba ñu mën a di jokkoo ak seen naataangoo yi nekk ci àdduna bi yëpp. kenn si ñi nga xamante ne bénéficier na si financement FOPICA yi Nicolas Sawalo Cissé ak filmam l'otage du fleuve. li ñu mën a wax tey euh, c'est que ubbi nañu bunt yi pour que ñu mën a dem léegi ci yeneen dëkk yu mag yi dëkku dëkku dëkku dëkku euh, dëkku Europe yi. Euh, donc moyen d'expression la te bon ñu ngi gërëm waa direction de la cinématographie euh, gërëm suñu borom tey bi nga xamee ne jox nañu possibilité ñu mën a commencer exercer art boobu quoi. lu ëpp nag téeméeri dossier de projet la jotoon am. budget global bi nag toll ci vingt cinq milliards si projet yi nga xamante ne retenir nañ leen ñu financé leen ci autoroute neuf cent vingt et un millions ak lu tek cinq cent soixante millions yi jëm ci filière ba ñuy wax filière de la production trois cent soixante et un millions cinquante six mille cinq cent quatre vingt nag ñu séddale ko diggante filière distribution exploitation ak formation. Aïssatou Paye ñu koy gërëm gërëm leen yéen ñi doon teewlu 19h30 bi 20h incha allah rédaction bi dina dellu si ak Cheikh Tidiane bu boobaa ci kàllaama nasaraan lay doon jox jëf.